comité d'organisation bi loolu nak ñu la koy sédel ndax cérémonie officielle tradition la bo xamni ni dafa nek entre spirituel ak temporel depuis jamonoy colon ya ba tey waral nak moy sëriñ si dañ dan gamu mu dan am ay pëccëxoo yu fa am seen colon du gouvernement français si lañ toogee xalaat ni spirituel ak temporel bu ñu àndul réew du baax ci le gouvernement France commencé gàmm gu am mu organiser ko ngir yebal fa sécurité waaye yebal fa li nga xam ni protection ba gàmm googu mën a jag muy dox ba sunu jonn yàlla tey république du Sénégal bi mu taxawé 1960 gamu gi ñu njëkk def fi premier ministre Mamadou Dia moko Moko prédis moo présider ci kanamu Cheikh Sidi Lamine Kounta kon li président Bassirou Diomaye Diakhar Fay woté yow Jean Baptiste Tin, xam nañ ni xam nga lan moy vision te mokal nga ko ndax yang koy doxal muy li nga wax léegi wa kazalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri mal kitaabu wala al imaanu walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim di jub jubal jubbanti ndax njaasaan mooy dëkku diine bi njëkk taxawal tariqatul qadriya fii ci Sénégal ndokk bi ngeen delloo Njaasaan li nga xam ne mooy moomeelam ci taxawaay ndax Njaasaan kenn mënu leen a defal lu leen seen maam sallallahu alayhi wa sallam defalut te kenn mënu leen a xañ li leen yàlla jagleel waaye nag liñ naan ànd neex na lool muy ànd bu rafet ndax ànd bu rafet ci la lépp di sosoo di ziar ñi bokk ci sa délégation di Seynabou gay Touré présidente conseil département bu Tivaouane di ziar monsieur le maire Ousmane Sarr mi bokk ci comité d'organisation bi am ci taxawaay ba pare di premier magistrat du commune du Chérif Lo di maire dëkk bi monsieur le ministre sëriñ bi mu ngi kontaan lool ci teewaayu ay mbokkam yi jóge ci yeneen réew di Mali Burkina Côte d'Ivoire Guinée Mauritanie Gambie ñoom ñépp teew nañ Sénégal Njaasaan ngir jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wa di waññeeku di la yëgal teewaayu ambassadeur yi nga xam ni bàyyi nañ seeni préoccupation ngir jëmmam ju tedd ji waaye ngir jëmmi maamam seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ni délégation ambassadeur yi tëddee ku xam histoire kër gi xam ni du hasard te am na lu ci yàlla nar a wane ndax buñ ne ambassadeur Algérie kër gi di ahlul kunti seen cosaan ci kunta Algérie la sëriñ bi génnam gu njëkk bi mu nekkee xalif général des cadres Algérie la dem njiitu réew yi kim ci njëkk a gis Abdoul Majid Taboun la mu defal ko teraanga joo xam ni may ko boppam ni ko incha allahu danaa ñëw ba njaasaan ziyaar si la bi élection yi amee le 6 septembre bii passé ma am ñu ma jokkool ma ni leen yaakaar naa ni de ci Abdoul Majid Tebboune kàddoom googu su fekkee lu mu gëm la yàlla mën na ko falaat ndax dig gi mu dig sëriñ bi ba may ko institut islamique fu xale yi war a jàngee un valeur de huit cent millions loolu monsieur le ministre ñu ngi la koy seereel ndax yéenay sunu kilifa si wàllu administration waaye Algérie mooy ñooy sunu mbokk ndax fa lañ jógee Tunisie fa la Uqbat ibnu Naafi al-Fihri njëkk a wàcc ci Afrique te Uqbat ibnu Naafi al-Fihri bu ñu nekkee ay africain yàlla ak mooma ndax mooy jaddul awal li qabilatil kuntiil alladi daxala fi ardi ifriqiya ambassadeur saaxilul aaj di Côte d'Ivoire lenn rek mooma ci metti monsieur le ministre si ambassadeur Côte d'Ivoire mooy réception bi ñu sëriñ bi dig ngir sa jëmm bu ñu sàggantuwul dana ko jëfandikoo lépp ndax ay dara la sant ànd ak sunu doomu baay alwali ibnu cheikh bu nan xaydara di jàmbaar ci tariqatul qadiriya ñu tase bitim réew ci ay yoon yu bari lépp rek ngir jëmmal tariqa bi ak le tariqa bi ambassadeur turki bi nga xam ni ñun jullit ñi dawlatul islamiya mi ngi commencé ci Muawiya ibn Abi Sufyan ndax Aboubacar Sadiq moo njëkk a donn yenent bi sallallahu alayhi wa sallam Omar topp ci Ousmane ibnu Affan topp ci علي بن ابي طالب كرم الله وجهه topp ci muawiya taxaw njëkk a nekk buur ci islaam taxawal dawlatul islaamiya di état islamique ki ko mujjee nekk mooy dawlatul osmaaniya dawlatul osmaaniya yo boobu seen capitale Istanbul la woon ki mujjee doon buur ci dawlatul islaamiya Kamal Atar toog la tudd kon kooku bu fi teewee ak asaarul islam ya nekk turki ñu dem fa xam ko kon ñëw na ci këram ambassadeur iraq ardul iraq bi Medina taxawee mooy suuf si njëkk recevoir waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun qadir suñu référence di cheikh na cheikh abdul qadir jilani di cheikh kullu tariqa di sultaanul lewliya di taajul aarifiin tëdd Bagdad kon ndawam bu fi teewee teew na ci dëkk boo xam ni ka tëdd ci rawdu bii di cheikh bu Mouhamed Kunta donn maamam cheikh Abdou Khadir Jilaani nuroog moom tur nuroog moom jëfin nuroog moom taxawaay kon ñëw na ci këram ak mboole ambassadeur yi nga xam ni ñi ngi ci jotaay bi mooy ambassadeur Irak ndax ci histoire Iran amul woon Irak amul woon ardul Irak moo amoon première université ci wàllu naxu Basra la première université ci wàllu fiq Kuufa la Ali ibn Abi Talib nekkoon fa imaam Xasan njëkk a génn Medina dem Irak kon suuf soosu suuf su tedd la moo tax waa kër yenent bi bari fa Cheikh Abdou Khadir ne dëkk fa kon représentant boobu bu fa teewee présenté na Iran présenté na Irak waaye présenté na Moyen-Orient yépp nag fi may jeexale ci présentation bi monsieur le ministre sëñ bi dénk woon ñu ko muy sa frère di l'ambassadeur cérémonie bi am na ay délégation yu bari yu fi ñëw ñëw di ñaanlu ci Palestine ca na mu demee ñun ay jullit lañ te masalul muminina fi tawaaduihim wa taraaxumihim ka masalil jasadi saa'iral jasadi bi sëhri wal xumaa jullit ñi seen tolloo seen bëggante seen jàppalante dañoo war a mel ni yaram ab jëmm nag bu ci benn cër mettee dina metti waale cër yëpp ba mu tee nelaw foofu la sëriñ bi tool digganteem ak Palestine sëriñ bi di ñaan bépp gouvernement ak képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa ñu bokk ñun ñëpp jëfandikoo waxi yàlla ci Palestine waaye jëfandikoo waxi seydina muhammad ci Palestine waxi yàlla ci Palestine muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkufaari ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujadan waaye soxla wuñu lu dul sàkku ci ngërëmal yàlla ak jàppalante looloo waral Palestine sëriñ bi joxe ndigal ci njiital oustaz Mohamed Babou mi président commission scientifique bi ndax toog nañ biir kër sëriñ ba waxtaan ci ab thème ma ñëw gaaral leen ko ñu ni ma ndax ndigalu sëriñ bi la man leen déet dañ ko ko gaaral rek mu ni ñu baax na ñu ni ma est-ce que mën nañoo proposer thème ma leen bu ngeen proposé dem ma demaat ci sëriñ bi jox ko ndax ndaw laa rek ñoom commission scientifique bi ginnaaw seen réunion ñu proposé taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwaan ma ñëw ci sëriñ bi wax ko ko sëriñ bi ni ma su ma waxoon tem ngir ngeen waxtaane ko alqu ay alquran ñëw la ma waxoon day daal di dàqu kon wéyal leen lii في سيرن بي تولو القران واي تعاونوا على البر والتقوى بويبو فلسطين مو تخ ني غنا ген تيم بوبو ريك واي جولي ني من را منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه كم من تدمبلي وا فلسطين تي اد نغا دمبلي وا فلسطين تي جيلين نيانال واي نغا دمبلي وا فلسطين تي واخ yuuxu ba communauté internationale union nations unies dégg ni ñun jullit ñi li ñuy teg Palestine metti na sunu xol yàlla nañ ko yàlla arrêteel sëriñ bi di mettitlu réewam li fi xew mel ni ay musibaak ay balaa mel ni dañoo fàtte yarinu mag ñi ci boddikonte ci xeebante ci yàqantey der ci sosalante te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni iyaakum wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur na ngeen moytu wax lu leen wóor na ngeen moytu wax ay waxi mbóosóor na ngeen moytu di seede lu ngeen fekkewut wa yushiru ala sadrihi salaasa marra moom sallallahu alayhi wa sallam di fëgg dënnam naan at taqwa haahuna at taqwa haahuna at taqwa haahuna rikk waay sëriñ bi nee na réew mi réewu teraanga la réewu cheikhul xadim ñu tëral ko fa réewu cheikh alxaaji malik si radiallahu taala anhu ñu tëral ko fa réewu ëmari ndaak sekk ñu tëral ko fa réewu maam limaamu lay ñu tëral ko fa réewu alxaaji abdullahi ñase ki njabootam ñu tëral ko fa réewu seydina omar fuutiyu taal ñu tëral fay njabootam ak mbooleem këru diine yi nekk ci Sénégal réew moomu ëpp naa caaxaane nañ leen génne manière gi nekk ci suñu xol yi politique du animosité politique du adversité politique ñaar ñu ànd la te bokkuñu xalaat te islaam daf ñu wax ni fal nataxaawar fi ma tafaq naa wal natasaamax fi man farax naa li ñu dëppoo nañ ko consolider téye ko li ñu wuutee nañu toog péncoo ko waxtaane ko te réew mi ñoo ko bokk te ku ne gis na ni mi ngi bëgg a yàqu ci yu bari bu ñu demee ba mbënd am ci réew mi am ci ab dëkk boo sell di Touba Mbakke sëriñ bi di ko mettit lu lool di ñaanal rakkam ci cheikh Mouhamadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasara ndax la xew Touba moo xew Njaasaan mbënd mi dafa mel ni dafa xew Njaasaan ci mettit ndax ku ne xam na ni kër diine yi benn bopp lañ loo ci laal laal nga keneen rawatina diggante Touba ak Ndiassane léeg sax nga dégg un intentionné taxaw naan ani liggéeyu sëriñ Touba ba mbënd di am ci dëkkam kooku ñu koy xamal ni mag ramma moo gën a moo njëkk a inondé ba kaaba gi muuru bi mi ngi massawu képp ku dëkk Touba ndax njaboot gi benn lañ jëmuwaay yi benn la ngëm-ngëm gi benn la sëriñ bi mi ngi soññ taalibe yi ndax njabootu ahlul kunti yi li ci ëpp ci géej gi lañ nekk géej lañ yaakaar ak mbay mi ngi ñaan képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa li yàlla dige woon dana ko def te yàlla moo dige woon yenent bi ni ko naa laka fathan mubinan li yaxfiraka allahu ma taqaddama wa ma taaxar waaye wa yutimma nicmatahu alayk xéewal dina am ci réew mi bàyyi leen géej gi wajur yi kullukum raayin wa kullukum mas'ulun an raayatihi kenn ku nekk ab sàmm la te sàmm bu nekk yàlla dina ko laaj lam la sàmmloo woon sa doom nga teggi natt jox ko ko ni ko demal ci mbënn mi lu ko fa dal yaa ko teg te yàlla dina la ko laaj bay sa tool ba mu pare jaay sa jiwu woo sa doom ni ko danga war a tekki demal ci mbënn mi weddi yàlla mu rawu ko yàlla ma nekk Italie nekk Espagne moo nekk Sénégal te bis bu ñu gëmee li nga xamante si nii mooy sunu suuf si gëm sunu barke mag ñi yàgg-yàgg lépp dina baax yàkkamti nag baaxut ndax ndar xëyul xëy sotti kon immigré clandestin bii fi am ci réew mi sëriñ baa ngi ñaan yàlla na dakk bis ñi ki tey ba dootuñu enregistré benn pirogue boo xam ne day traversé Atlantique bi ngir teere ji Europe sëriñ bi mu ngi ñaan nañu yaraat jikko yi innama ursiltu li utammima makaarimal axlaax jikko ju rafet rek la ab jullit mën a am ba mën a yegg ci yàlla ndax lu nit mën a am des na ko booleeg loolu toroxal ko ba mu des jikko ju rafet kon accident yu metti yi accident yu bari yi jikko ju ñaaw bokk na ci li ko waral ginnaaw ndogalu sunu boro bi bu ñu jël yàlla nag teg ko lépp ndax yàlla nee na ba ma leen joxee xel jox leen seen conscience ngeen sabab si laa wàccoo ak yéen ndax xam ni bàyyiwuma dara deseelu ma dara taw ma kaana allahu bi zallaamin lil abid yàlla du doon jaam kon foo accident amee ñu jiiñ ko yàlla ñu ngi tooñ yàlla xaasha nag ñuy tooñ yàlla nañu xool lan moo waral accident boobu chauffeur bu yaradiku la oto bu baaxul la ay clients yu immature nekk ci oto bi di ko daw loolu mu warta daw la ay client yu irresponsable nek ci auto bi gis chauffeur di dawal naka sa te dénoncé wuñ ko kon serigne bi nee mi ngi ñaan nañu yaru islam bi nga xamni mom lañu mag ñi moñé serigne bi mi ngi ñaan nawet ñu né nako yalla barkel gouvernement bu bes bi di cinquième république yàlla na fi yalla jaarale le xolu sénégalais yi Yalla jaare fi wàcce naataange monsieur le ministre njabootu islaam yëpp teew nañ ci tànt bi njabootu ahlul kuntiir yëpp teew nañ ci tànt bi sunu dëkku wajur muy sunu dëkku baay mooy ndànk kajoor keroog wax nañ la ko ci CRD bi ahlul kuntiir yi fi teew yëpp benn maam moo leen indi ci réew mi muy naa bu Cheikh am Ama Kunta kooku nag fa mu tëdd sëriñ bi mu ngi ñaan le nouveau gouvernement nañ ko ko bàyyil xel ndax amuñu lu dul ndànk googu ndax uuful ahda innal ahda kaana masuula te cheikh bu Mouhamed Kunta mii di sunu yaakaar cheikh bu Naama Kunta mee mooy yaakaaram ndax olof Njaay dafa ni liggéeyu ndey waaye barke baay kon njabootu ndànk yépp teew nañ fi ndeer naar gi nga xam ni sëtu cheikh bu Naama Kunta moo ko sa doomu cheikh bu Naama Kunta bu jigéen moo ko sanc di soxna Fatma Kunta ñu joxoon ko góor guñ naan a Abdul Latif mu dem sanc ndeer bokk ci dëkku ahlul kunti yi nga xam ne sëriñ bi mi ngi ñaan gouvernement bi ñu bàyyi ko ko xel ndax enclavé wu na lool dem fa metti na lool sanc Buuna bi nga xam ni suñu maam Cheikh Buuna bekkaay di doomu Cheikh al Bekaay di taawu bu Buuna ma moo ko sanc njabootam yëpp ñu ngi fi sëriñ bi mi ngi ñaan suuf su tedd soosu suuf su sell soosu nañ ko ko bàyyil xel ndax suuf yooyu li tax mu koy bàyyilu xel ma sawada al ardu illa rijaluha wa illa fala fadla li turbin ala turbin bu yett shérif ñi nga xam ni ay sëtu cheikh bun lañ di waa kër xaali buuna siidi shérif ñu sanc bu yett shérif di ay xaydara xaydara sëriñ bi nee na mi ngi ñaan gouvernement bi mu bàyyi leen xel ndax enclavé wu na lool waaye ñoom xaydara xaydar yi xam naa ne nag ceeb la ñuy gën a demandé ndax loolu mooy seen aada kamataan dëkku sëriñ bi la lat mbenge dëkku sëriñ bi la njaasaan dëkku sëriñ bi la njaasaan saalum dëkku sëriñ bi la kër lamin dëkku sëriñ bi la kamataan kunta dëkk sëriñ bi la xafiidu Cheikh Ahmadal Bekaay Saaru Diin mi ngi ci jotu mi ngi ci jotaay bi li tax ñu koy tudd monsieur le ministre boo liiree histoire Cheikh al Bekaay Diin di doomu cheikh al khalifa mu cheikh sidil al kunti mo doon wax ni duaa yi mustajab wa shikati wa taqwaka kanzun fihi wal ilmu maliya ndax kunta dafa am ay soldar yu ci nek mom mu bokkoon ci soldaari kunta yi ndax kunta fukki keur ak ñaar la minhum waliyun wa minhum muqtasirun wa minhum wa minhu wa minhum badalun manam pep orientation wilaya rek mi ngi ci Kunta Cheikh Ahmadou Becaye nag amoon ci taxawaay bu am solo kon sëtam bu fi teewee danañ la ko présenté di la wax ni waa Ceriak ñi ngi fi di dëkku Cheikh bu Mahamed Kunta dàgg yundoo nag saara gati di ay dëkku Cheikh bu Mahamed Kunta ñi ngi lay yëgal ni la alxaaji Ibrahima Thiam al mumassil muassas Hassan Sani ki nga xam ne moo représenté fondation Mohammed Hassan II mi ngi fi jamaayatu rihab imam Seyni Gueye mi ngi ci jotaay bi ànd koog oustaz Mohamed Babou mi nga xam ni moom moo yor commission scientifique ànd ak Birane Ba mi nga xam ni moom mooy secrétaire général am monsieur le ministre sëriñ bi fi muy daanelee mooy mi ngi lay yónnee sant ak ngërëm ci président de la république olof Ndiaye nee na lu daawul am bu amee gan ña la

Dan wax olof ci kalam arab dafa mës a wax ni fa kullu man yëgaga nii aw hatta ni niyal bañani in toroxaani kep kuma yek ma yek la soma bañe da ngay tor rox ndax du ma yëg mbañeel googu waaye yëg gi président de la république yëg Ndiassane doy na sëriñ bi sëkk ndax sëriñ bi nit mënu koo defal lu ko maamam sallallahu alayhi wa sallam defalul bi mu fi yebalee ñooñu ba pare ñu jóge fa sa chargé de religieux sa conseil di alaaji Samba Diaw am ci taxawaay wu am solo ci Samba jauh, mësta dañ Gudi ak bëccëg di woo alaaji Mamadou coordinateur di ma di woo Mamadou Gueye monsieur le ngir gàmmu Ndiassane baax alaaji Samba Diaw dem na ba ne ma Cheikh Al lépp luy démembrement d'état te ministre de l'intérieur yilif ko jàppal ni jël nañ ci moom ay mesures laata réunion nationale waaye laata CRD looloo waral CRD réunion nationale yëpp fast track lañ ko def kon Alaaji Samba Diaw sëriñ bi mi ngi lay sant bu baax a baax a baax ci coordination boobu waaye nag laa garwa bi adiyin iqtada abahu fil karam wa man wa man shabaha al aba fa ma zalam Alaaji Samba Diaw dëkk Touba di taalibe Cheikhul Khadim ñu joxoon ko Masaalikul Jinaan mu coordonné ko ba jël caabi teg ko ci loxo sëñ Muntaxa bu ko ministre de l'intérieur wóoloo ba teg ko ci kanamu sëriñ ci digganteem ak moom na xam ni matal na lépp sëriñ bi di la nuyoole te di la bàyyiloo xel doomam El Hadji Malick Ndiaye ministre bi yor wàllu infrastructure dafa nekk ci tukki waaye kooku ak sëriñ bi ministère boolewu leen relation donnant donnant boolewu leen relation papa ak doom moo leen boole moom El Hadj Malick Ndiaye laata muy nekk li mu nekk ci jamono ju metti ci la tafu ci wajuram cheikh bu sidil muxtaar ba bi mu nekkee li mu nekk gën a tafu ci wajuram cheikh bu sidil muxtaar looloo waral sëriñ bi ni ma na nga wax ci accident yi ndax sama doom moo yor ministère boobu tañ bañ koo tuumaal te xam ne yàlla mooy dogal lu ko neex waaye nañu yaraat jikko yi ngir accident yi wàññeeku monsieur le ministre duñ la téye ci jotaay bi lii rencontre le woon bu entre culte ak li nga xam ne exécutif bi di gouvernement bi ba nga xam ni suñuy waxi xam-xam ginnaaw la conférence bu mag bi war a am fii ci mi ay docteur ay chercheur war koo séq sunu diggante la ak yow ngir leeralal la la nga santoon say démarquement yi nga xam ne ñoo ñu yilif ndax def nañ ko wala defuñu ko te am nañ fulla gu toll ni nag suñu ko deful woon ah du ñu wax dara de waaye bu ñëwee leneen la ñuy wax ndax nit du nax boppam te yàlla nee na rëy na ci yàlla ab jaam bu ma gëm taxawut di wax lu mu gëmul ngir bëgg lu neex nit du cheikh bu sidil moxtaar bii nag kaddu tariqatul qaadiriya bii nag duñ ci leble bor duñ ci fay bor ndax gisuñu lu ñu ko jaral presse bi sëriñ baa ngi leen di bu baax li tax ma bëggoon leen a mujjee man damaa bokk ci yéen gis seen coono yi ngeen di daj toujours may fukkis ci liggéeyu presse ndax presse moo mën a defar moo mën a yàq presse dafa sensible trop kon presse bi sëriñ bi mu ngi leen di jëfal di leen gën a ñaax nag ci fake news yi nañ ko moytu bu baax a baax a baax dagg ay kàddu sof ci beneen kàddu safaan nañ ko moytu bu baax a baax loolee ñu naan vaar di sosal nit ca la mu wax ñu génn ci benn moo fekk la mu wax lépp baax na benn ci négatif nañ ko moytu ndax nit la muy liggéey di ci tedd da cee war a ragal yàlla ndax nit bëri na lu mu liggéey ñu fay ko ko mu lekk ko fekk riba la ndax urgence ba mu def ci compte youtube am urgence ba mu def pour wane ni urgence am na pour nit ki liir ko pour mu am ay vie mu wanoon yàlla ay vie yàlla teral ko moo gënoon fuuf muy sos di ko def ci compte youtube am wala compte instagram am wala compte whatsapp am ngir lan ngir bëri ay vie vie yi boo ko amee lu ñu lay def dañ lay fay as lëf payug yàlla nag moo gën payug doomu aadama ndax lu ñu la mënti fay cachet bu ñu la mënti jox chèque bu ñu la mënti jox boo ci dundee ñaari fan ñetti fan mu jeex ani yàlla mi la war a yor yor sa njaboot ba ilaa yawmi diin kon presse bi nañ gën a góorgóorlu gën a ragal yàlla ci image yi te di suturaalante nag yàlla nee na journaliste bi bu ma suturaalalee dinaa ko suturaal adduna suturaal ko àllaaxira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni képp ku suturaal nit ay ayibam yàlla dina ko suturaal yowmal qiyaam ci ay ayibam te nag yàlla subhaanahu wa taala nee na wa kullukum aatihi yowmal qiyaamati fardan kenn ku nekk danga nga teew ak moom yowmal qiyaam jàpp ni yow rek la sàkk keroog wax lu dul dëgg xaju fa wane image bu dul dëgg xaju fa fake news xaju fa dagg waxi nit wane lu négatif li bàyyi lu positif li xaju fa kon presse bi sëñ baa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla defal ay promotion yal na leen yàlla defal li ngeen bëgg yal na leen yàlla defal kenn ku ne nga am télé buy émetre ci bouquet international bi وما ذلك على الله بعزيز نيت بو گمي سبب ناخ شيخ احمد تيجان شريف نينا لو كان همت المري تحت ثريا لنا لها ولا بو موني همت المري قاهره على جميع الاكوان نيت اوبجيكتيفم مو سوت ادنا كون سين اوبجيكتيف نيك تخاول اي تيلي بريفي يو خامي كاي مومال سين بوب غير لان غير نين مانا گنا نيونغال سين ليغي واي تيك لين كو سي جوب جوبل جوبنتي اك ماندوتي رجال الامن لي سيكوريتي commencé ci sécurité kër gi di soldaari borom Ndiassane yi nga xam ne ñooy nekk guddeeg bëccëg di ànd ak alaaji Mamadou coordinateur di liggéey ak moom ak bëgg-bëgg cheikh bu Sidil Moxtaari Kunti yi ci dëkkam bi ndax dëkk bi ardun xawat fi tayha azam fa taabat bi tibihinna al qaaw wal akamu biha al majd cheikh bu Mouhamed Kunta cheikh al qawm al arabu taarifu man qulta wal ajamu bi daawatin fi suduli leyli in fajarat biha uyunun ma tasafa minhu baadi wa mustaqim waaye nag na nga teral fakrim bi qawmin rasulullahi shiatuhum na nga teral xeet boo xam ne rasulullahi mooy seen mbokk istachayaat al ajnaatu wal ukamu bisa ngi ñëw kenn ku nekk di nga bëgg a mbokk ak rasulullahi kon boo gisee waa kër rasulullahi si dëkk rasulullahi te ormaala loo ko ormaala loo yenent bi kon soldaatu borom Njaasaan yooyu di dox ci ormay dëkk bi di sàmm ormay dëkk bi daj ci lu nekk sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal gendarmerie nationale Nous sommes interlocuteurs entre le interlocuteur entre ministre de l'intérieur ñuy le commandant Abdoulaye Saw, ci liggéey bu mucc ayib bi fi dem ndar commandant Abdoulaye Fall ñëw rejoindre ko fi di sant bu baax général Jean Baptiste Tin, ci Ousmane Gueye mii di président commission de presse ci pexem ci ak wëllër gi ma am ak général Jean Baptiste Tine bobu nekkul ministre de l'intérieur lolu mo sabab gendarmerie Ndiassane bi di brigade proximité de Ndiassane kon gendarmerie ñi ngi leen di jaajëfal bu baax seen taxaway guddii ak bëccëg serigne amu kunta ya ci des yow la serigne bi jël kala gi jox lako ngay rakam ñun ñi di sa njabot nak commencé ci cheikhal bekay Kunta ñi tok sama wet di jëwriñu kër gi jappalé ñu lool ci biir activité sëriñ amu damay ñaan nga ñaanal sa njaboot gi ma booleel ci liggéeyu kër gi ndax nit bu la gënul juddu ëpp la wërsëg ëpp la xam-xam ñu jiital ko sa kanam nga mu jiit googu jox ko kilif téyit googu gor piir ko mën te sa njaboot gi ma boole yépp loolu lañ def rawatina ak Cheikh Albekaay barki démb sama yaram dafa daw dafa am taalibe yu ñëw muy délégation ñëw nuyoo bu ñu ñëwee nuyoo jox nous sëriñ bi jox ma ko lépp lu fi ñëw ci ñu war ko teg ci loxo sëriñ man maa recevoir kon lu yàqu mën lu sikk mën lu matul mën cheikh 30 millions ni ma sama ci

si njiital alaaji Momodou, di coordonnateur bi cheikh Bou Khalifa, du conseil serigne bi Sidi Baba yor relation avec les euh, ambassadeurs ak président des ahlul ak Ndiaga Kone Ousmane yor presse ak comité bu nek ci ci ndax Ousmane ndax euh, Momodou, commission xam man daf may rendre compte tok gi nga fi tok jàkkaarloog sa raw du maam ñu nek ci bëccëg gu sel bëccëg gu yaakaarlu di waxtu tuha bayna tuha wa zuhr di waxtu nangu ñaan ñi ngi lay ñaan nga ab sa làmmiñu mam sayidina muhammad waye ñi ngi lay ñaan sa rak yi fi nek ci jotay bi yépp sa dom yi fi nek ak ñi nga xamne dañuy jëfëndiko hasbunallahu wa ni'mal wakil di wirdu qadir ñoom ñëpp ñu sotle la si Jean Baptiste Tine ministre de l'intérieur ngir nga ñaanal ko li ko président Diomaye Diakhar Faye yónni muy naataange réew mi ak ci réew mi ci biir ak ci biti yàlla nangul leen ko yaakaar nañ la ci ndax tey ndax tey yow yaa fi Cheikh bu Kunta ndax yaa mag si jotaay bi sant Kunta ñu fi sant dara di alwali mi ngi nii ak ambassadeur Côte d'Ivoire bi ñoom ñëpp yaa leen mag kon ahlul bayt yi fi nekk yëpp yaa ci mag dañ lay ñaan ci mag googu nga mag te yonent bi ne albarakatu ma fi kabirukum nga ñaanal réewum Sénégal jàmm wàcc fi nawet bii bi ñu nekk yàlla yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin te lu ci dukkee rek barkeel liñ lay sos daal sëriñ bi gàmmu Ndiassane 2025 buñ fi togat yalla na aajo yep faju kon ñi ngi jox rendez-vous di 7 h fi ci conférence bu xam-xam bi na ñep selal yene yi te balonté ak te yéenente jam serigne bi defal ñu ñaan wa kullu amin wa antum bi khairin wa salamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Al Khalifa kaddu yi rafet na yalla yalla guddal sa fan yalla na la fi yalla bàyyi ne nga lu yaqku yow la dara yaqul defar nga lépp defar nga lépp macha allah yàlla na la yàlla def mag yàlla na la yàlla barkeel yàlla na la yàlla yokk ci ndigal rek ngay wéy mu ne ñi ngi delluwaat ñi nga xam ne ñoo di sécurité ñu gën leen a gërëm muy gendarmerie di police liggéey bi rafet na kontaan nañ ci yàlla na yàlla barkeel leen Yen ak seeni njiit Sidi Cissé yow tam ñu ngi lay gërëm bu baax ci lepp aw xuraan nga wax ko fi ci ndiasan ndax say mam rek nga fi togal ñu ngi lay gërëm bu baax di la sante mbokk yi dañu bëggoon kon ñu and Cheikh Al Khalifa mu ne bu nu paré ku am gan dang koy teral ñu may monsieur le ministre ak délégation officielle bi ñu and ci kër wajuram ndax mu mën a wéet mën a dallu loolu yaakaar naa moom lañ bëgg ñu déglu ñaanu sëriñ Mohamed Amou Kunta moom sëñ Abdourahman moom cheikh bu Mohamed Kunta mu ñaanal Sénégal ñaanal taalibe yi ñaanal réew mi ñaanal gouvernement bi nga xamante ne ni it ñoo nekk ci réew mi bisimilah. nangu leen ñaan fu waay toll na wax amin mu ne na ñëpp na ku nekk def fatiha ak falaxi ak naas آمين يا رب العالمين آمين Amin. Amin. Amin. Amin. waaw binat, ne bi nag dana ci wax ñaari baat bi nu jëlee réew mi ne dafa taw ba ne dafa taw keroog ba loolu rek firnde la tubarkalla macha allah amin amin ya rabbal alamin amin amin jërëjëf Kunta Sidi moom yal na yàlla nangu ñaan ñu def ndànk de ngeen xool seeni poos ku nekk nag contrôle la poosam da leen xool seeni poos yéen ñëpp waaw jërëjëf jëf